asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences euh, ndaxam du actualité actualité bi mooy euh, Sénégal yi yëpp yëpp ñu ngi ci mbedd mi di naqarlu jëfi Macky Sall ak bëgg Macky Sall nu mu ablee réew mi bopp réew mi dafa am action bu jàll boo xam ne Cheikh Niass Euh, moo ko def euh, Cheikh ñas euh, dama bëgg mu xam ne du moom rek a nekk ci ay problème daanaka Sénégal yi gën a ne ci seen jàmm moom ca la bokk ndax bu woppee am na lu mu fajoo am na bay fay ay nit ñu di ko liggéeyal te bàyyi mit def na fi jaloore yoo xam ne doy na ndam Cheikh li nga def suicide la waru koon a defee noonu ay émotion la yoo xam ne war nga am niveau boo mën a contrôler sa yaram ba xam ni nga koy doxalee ay xale képp lay seetaan xale yoo xam ne yow mën ngaa daw am nga paasu avion xale yi amuñu ko amuñu ko émotion bu la jaral ah, nga bëgg a sa carte d'identité sénégalaise benn Macky Sall jaru ko Macky day dem day dem te ëllëg man naa yàq sa woy doom Macky Sall tax nga xotti woon say këyit loolu dara jaru ko faral say këyit nga def ci sa poos bu soobee yàlla Macky Sall dana dem sa bàyyee ko xeex di ko xeex di ko ba agsi fii ba ñëpp ni lekk Macky faatu yow mi yaa ko waroon rey ndax sa bàyyi tàmbali xeex bu metti songo moom songo bu metti ba ñëpp xam ne sa bàyyi nga koy xeex kon Macky bu ne ba dee des ci yow Cheikh ñas yaa ko war a bu max mu daanu faatu euh, ni nga defe carte d'identité bi rafetut bu doon man de du ko def am naa naqar yu may jot ci Macky Sall naqar yoo xam ne day dem ba ma ciy bëgg a xéer waaye damay bëree sama xel ak sama xol waññu ko téyewaat samay këyit ndax Macky joxuma këyit yi Macky moomul këyit yi Macky moomul réew mi kon Macky ay manière ak i habitude bu taxee yow nga am emotional depression ba jël say kayit di ko xotti ngir Macky intellectuel du def loolu intellectuel du def loolu del si ci combat bi wal fajiri nii ñu ko tëjee ak ni nga defee nit ñi mën laa jiiñ complice sax mën laa jiñ complice sa digg ak Macky Sall te amaana amaana na ko sa bàyyi bañe woon nu ko raw nga ko bañee dellusi ci géew bi waaw carte d'identité bi yàquwul boo demoon tribunal sans euh, boo demoon renoncer sa nationalité ñu xam ko mais renoncer woo ko carte d'identité bi dafa dagg wala nga dagg ko demal wuti beneen bu bees waaw boo wutee beneen bu bees ñëw ànd ci combat bi bu ko deful Sénégal yi yëpp te da ngay dolli sa morom yi jom waaw parce que dañ laa soxla dañ laa soxla non seulement am nga expérience bi mais tu as fait le droit te réew mii dañoo confisquer droit bi fi ne bul dem mukk bul dem mukk ñu naan Cheikh daa daw bul daw mukk li sa baay tàmbaloon yeggale ko waaw te it damay jaay wal fajiri wal fajiri waroo koo jaayee noonu ay nit a ci nekk ay at fanweeri at di ci dund yor ci seenu njaboot nga mer nga mer ci yi damay jaay wal fajiri loolu am xel mënu koo nangu xel mënu koo nangu waaw kon nu gisee ko noonu maa ngi yéen a ànd maa ngi yéen a far waaw nit bu demee ba combat bi ëpp ko émotion dominé ko ba mu nar a dem nun ñëpp ñu war a taxawaat naxanteeg moom ba dellusi ko ci géew bi ndax kii kat jàmbaar la Cheikh Niass jàmbaar la soxnaam it jàmbaar la ci le panafricanisme waaw kon maa ngi leen di ziar te jégglu te ñaan jàmm Macky Sall yàlla na dem ko ayam armée française yàlla nañ dem Institut Pasteur yàlla na fi jóge képp ku ni ci réew mi que sa kilifa diine ak loo mën a doon di yàq di yàq wala ñu sàcc di la jox yàlla na fi suñu borom jëlee ban mën a jotaat suñu réew doxal ko nañ ko war a doxalee man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences